Nous avons véritablement am ci ay résultats satisfaisants lolu dina neex dina neex Sénégal dina neex le président Macky Sall bi nga capital humain jël enseignement daf ko ci priorité super ma waral depuis nous avons fait une journée en philosophie fait une journée aussi géographie avons fait philosophie nous savons négativement même impacté négatif du saay buñu wara jappalé a yi def ay action citoyenne dinañ ko def wara la tay ñun ñu def li buñ koy def réseau de Thiès dañu aussi membre du CDR

dinañ continuer di def autrement la politique mooy jàppale le président Macky Sall gunge le président Macky Sall à travers li nga xamante ne moom la gën a bëgg mooy xale yi. tey ci wàllu li nga xamante ne mooy euh, mën nañ jàpp ay jafe-jafe yoo xam ne école sénégalaise mu ngi koy dund euh, yéen lan mooy seen taxawaay ci jafe-jafe yooyu. mais jafe-jafe yi d' abord dañuy wax ni du guléet mën naa ne ça fait plus de dix ans le jafe-jafe nekk boo gisee tey ñun ñu le président Macky Sall di régler problème bi xamal ne bokk na quand même les errements du régime passé mais n'empêche jafe-jafe quoi qu'on puisse dire ñu ngi regretter. regretter ndaxte suñu système suñu Sénégal mérite ñu leneen lu ñuy paralyser quand même suñu système éducatif waaye nag lu ci am solo mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ay enseignants nañ fexe ba préserver li nga xam ne mooy suñu outil de travail mooy l'école fexe ba aussi nag à droit à l'éducation ñu mën ko préserver xale yi ak étudiants yi fexe aussi nag vraiment di ñaax li nga xamante ne le président euh, le gouvernement du président Macky Sall ñu gën revaliser rek li nga xam ne mooy la fonction enseignante mais savons que le président a fait ay efforts incommensurables pour régler les nga de ne enseignants déjà FUSE nous koy félicité lever le mot d'ordre yeneen syndicats nous un ñu ngi leen ñaax ñu relever ce mot d'ordre point d'achoppement bi le problème d'indemnité la un problème de date entre fin mai fin juin gouvernement bi nee na lépp lu mu mën a def aussi nag pour les dix mille loi l'effectif fin juin la koy def gars yi ne fin mai la ñu bëgg donc ça veut dire que la des pour que véritablement problème bi jeex complètement lu ndaw la te lu ndaw loolu nag gëm naa ne élection fan yi di ñëw ni li nga xamante ne que mooy problème grave, day nekk mauvais souvenir président wax na ni bëgg na instaurer benn dialogue boo xam day nekk un dialogue permanent entre ministère de tutelle bi les organisations syndicales Nous avons wax ni le dialogue bi quand même un dialogue franc sincère et fécond encore une fois ki nga le ne le président def 24,2 milliards ci système pour éponger avancement yi rappel et ak mise en solde yi jàpp ni véritablement def quand même ay propositions concrètes sur la table Nous des mooy ñun ñii nga enseignants ak organisation syndicale ñu fexe ba sauver li nga xamante ne mooy suñu outil de travail mooy l'école sénégalaise publique c'est important lu ñuy wax ni donc par conséquent xiiro euh, euh, ñàkk déggoo moo ñàkk waxtaan moo am n'est-ce pas mais ñu ngi demander ministère de tutelle mais di faral di imposer li nga xamante ne le dialogue que dialogue bi nekk un dialogue permanent loolu bu ñu ko defee wax di gis ni feex dootu ñu gisati li nga xamante moy perturbation ci système éducatif waaw ndag mo ndag di euh, day nécessité ay moyens yu tax est ce que tay li nga xam moy kifa mooy kilifa yi ngànk dëkk bi ngànk parti bi est ce que japp waaw xam nga euh, moy mom c'est relatif moy bu ñëk moy volonté bi nga xamante ne tey ñun enseignant APR Thiès am appui quand même CDR gis nañ ko té volonté mo am solo première ressource nit moy volonté volonté baa sacrifice buñ ko wara def pour sauver jappelé xalé yi def ay actions citoyennes ñun réseau de Thiès dinañ ko def que responsable politique politiques ci sen loxo ñu bañ ci dugal sa loxo ma sont les ni amul solo mais c'est pas important lu am importance rek que il n'est jamais trop tard pour bien faire xalé yi du suñu la domu Thiès lañ domu Sénégal la ni ñu mëna def la promotion lutte wala course épique ak yeneen yeneen nañ fexé dal ba suñu ressource humaine bi nga xamante ne mooy suñu ëllëg euh, avenir Sénégal moy xalé yi nañ fexé ba véritablement ñu mën ci def le maximum effectivement mooy wax dëgg yàlla manqué nañu à l'heure je vous parle mais amul solo lu am solo mooy li ñu def ñun gëm nañ ko te dinañ ci dem ak détermination yi am solo yu xóot parce que gis nañ ni carrément li ñu def ne dëgg la te lépp loo xam ne dëgg la nit ku nit ku baax waru ci ragal dinañ ci jóge ak philo dinañ def français dinañ def histoire géographie comme daaw dinañ def aussi nekk benn série euh, matière scientifique mooy SVT xale ju koy demandé dinañ ko def dinañ leen gunge

Maki jaral nañu ko sur avenir Sénégal ak Thiès mi jaral nañu ko dinañ ko def ñu def ci seen deureum c'est pas important ñu bañ ci def deureum c'est pas important mais li gis moy tay déplacement maire Tarasila ak représentant maire Ngoudiane ñëw l'ensemble des organisations syndicales ñëw nañ imam yi ñoo nañ fii parents d'élèves yi ñoo ñu fi société civile ñoo ñu fi sant yalla ñi ñoy acteurs éducation donc ñun bu ñu defoon un milliard té acteurs de l'éducation teewuñu mais dañuy japp ne carrément am lu ci manqué kon lu ñu def dëgg la motax tax ñoo ñu def déplacement ñoo fekk suñu ci li ñuy def donc par conséquent ñun lu ñu mën mo sant leen gërëm leen té vraiment xam ni fuñu jëm li ci am solo mo ñu ando doon ben té vraiment pour l'intérêt Sénégal warul am xajax sét kenn warul xam ci ban parti la ñu bokk parti appel wala parti bi réew mi wala parti PDS lu jëm ci xalé yi liñ boole jappalé leen parce que nag intérêt réew mi bi en off en offrant une journée de philosophie à l'intention et au bonheur des élèves du département de Thiès des élèves de terminale. Euh, ceci dit, c'est une autre mission que le président de la République a confiée à tous les enseignants donc, de la paire, y compris moi-même, pour former les enfants et pour former les enseignants eux-mêmes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici, donc euh, aussi profiter du plateau pour montrer, pour informer les Sénégalais de la vraie vision du président de la République quant à l'école sénégalaise qu'il souhaite euh, être une école devant former tous les enfants du Sénégal, donc euh, dans tous les secteurs, pour tous les secteurs en tout cas, euh, où euh, nous avons besoin de vrais enfants formels. Face à la crise qui sévit euh, scolaire, avec la quelle est votre lecture notre lecture, c'est d'abord déplorer puisque euh, la bataille ne devrait pas aller dans le sens de pouvoir euh, refuser à l'enfant d'entrer en possession de ses notes, parce que ce sont ces notes qui lui permettent de s'orienter et de pouvoir redresser son comportement au niveau de l'école. Mais quand même, je crois que la crise-là est finie, euh, compte tenu de ce que le président a offert, en tout cas aux enseignants donc, qui défendent leur plateforme. 24 milliards et quelques. Cela n'a jamais été en tout cas fait dans ce pays où le président lui-même décide de mettre ça sur table. Et les constructions que nous voyons un peu partout dans ce pays, les constructions de collèges, clés en main, collèges élémentaires, clés en main, en tout cas deux universités, deux universités cette année, depuis l'année dernière, sont en construction pour que ces élèves-là à qui nous sommes, nous sommes en train de donner cette cours de philosophie, euh, donc seront orientés. Donc, euh, un régime qui le fait, donc disons, et encore des cartes de concertation que le président lui-même a créées avec le Haut Conseil des cultures locales et d'autres moments donc, de concentration qui ont été accordés en tout cas aux enseignants, à d'autres secteurs en tout cas donc euh, euh, qui contribuent à l'éducation nationale. Donc euh, je crois que le président de la République a montré sa ferme volonté de redresser en tout cas le système éducatif du Sénégal et universitaire. Le cadre, c'est un cadre qui, qui a pour vocation de redynamiser et de constituer le dialogue au sein du réseau des enseignants. C'est que le réseau des enseignants était dans une totale léthargie. Depuis 2012, lorsque le président Macky Sall est installé, en tout cas au palais, donc les enseignants que nous sommes n'avons plus fait d'activité. Donc ceux qui ne militent pas dans le sens d'aider le président de la République à former donc euh, tous les Sénégalais à animer le parti, à contribuer dans l'apaisement de l'espace scolaire comme euh, ce que nous connaissons cette année. C'est pourquoi le réseau là, euh, ce cadre-là est créé pour aller en tout cas parler de la bonne nouvelle de l'école, c'est-à-dire du système Macky de son excellent président de la République, un peu partout dans le pays. Donc et les perspectives. Donc comme aujourd'hui, euh, nous serons ailleurs demain, donc euh, notre euh, calendrier retient que nous devons former, nous devons animer le parti, nous devons massifier le parti, nous devons pacifier l'espace scolaire, ce, ce, que nous avons fait en rencontrant plusieurs syndicats d'enseignants et plusieurs centrales de syndicats d'enseignants comme le QSEMS, e comme le FUSE, comme le grand cadre, euh, donc comme euh, euh, le QSEMS, e comme l'UDEP. Donc nous avons fait ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la formation. Donc, demain, nous allons descendre dans tout le pays, aller rencontrer tous nos camarades. Donc, ça là, dans le cadre de la massification du parti, et demander à tous les enseignants de se préparer par rapport à 2017 pour que le président de la République ait en tout cas la majorité à l'Assemblée nationale.